di ko masawu di de encouragé euh, ñaax tamit askanu Ngor ñu gëna dëgeural dëgëral taxaway parce que wax ci tay tey état bi lu muy def tay ni fofu la ko doore moy waxtan waxtan parce que mbiru souf bir Dakar particulièrement euh, dafa euh, dondu jaxal askanu Sénégal mais surtout jaxal askanu Dakar moy nu ñuy saax-saaxe seen suuf te xam nañ que Dakar dafa am spécificité moy lu ñuy woy les villages traditionnels donc euh, guina bu len leen di len di ñaanal ñuy ci gouvernement du Sénégal ñu gëna sax ci dialogue bi parce que souf norul euh, tay euh, jaral euh, parce que suñu demee tay bi di boom ay xarel ci mbiru wax dëgg euh, responsable non? nañ nangu assumer sen responsabilité yi te de la parce que dolé wax dëgg tay nak la ci nit ci mën donc euh, masuwaat bu baax a baax population ngor yalla dak dafa dogal maa ngi bitim rew wante suma ma ñibbisee incha dama fasiyene sol suma ay dal dem ngor masu monsieur le maire jale askanu ngor mbokk yi bu ma lolu ak charité bi yeen ñep xam ngeen ko ngeen may ma nak ma balu ak te di len di bal ak parce que senegal tay amaana am na feneen fu ñuy xaare kon nag euh, noonu lañ def suñu kenn kàttan ba kenn bañ ñu xeeb moo tax may sàkku ci coalition Yewwi Askan Wi ci yar ak nañu xoolaat seen taxawaay may euh, fàttali rek mbokk yi mais surtout di jël à témoin le peuple sénégalais parce que damay dégg tey yenn commentaires yi ay kilifa di yëkkati ay kàddu coalition bi di wax ne ni que coalition bi euh, d'accordut dialogue bi et que coalition bi yëguloon dialogue bi may fàttali mbokk yi rek ba ñuy sos coalition Yewwi Askan Wi ñeenti courant la woon ñeenti kuréel la woon benn bi moo nekkoon PDS bu président lay wat beneen bi nekkoon PUR bu suñu wójur sëñ Moustapha Sy

parce que dafa amone ben parti bu ci nekkone en l'occurrence Pastef bu fa waxone comme mom suy ñew day ñew ak ñuko ko doon jàppale ñun jamono boobu suñu xalaat moy d'accordon dañu d'accordon ak wa Pastef parce que effectivement duñ jappone ni que loyauté normal la woon ñoom ñu dañuy ñew ci coalition ñëwaale ak euh, seen euh, soutien wa waa lank bañ ne parce que lolu su amé dañuy compter ay voix donc daanaka ñuy ñëw indaale sen mbokk yi indaale sen soutien yi indaale sen xarit yi ñoom ñoo fay voix lolu dama ko bëggoon rappeler à l'endroit de certains leaders et leur dire que ñun a taxaw ñun lolu dérangé wu ñu donc tay lu tax may wax lolu parce que tay su nekké tay coalition yewi Askan Wi fàtte lu leen tax a moy mooy yé askan wi ak jéem xol nu ñuy yeewee askan wi.

2014 bataille. Khalifa Sall mënul bok ci ben élection Sénégal 2014 bataille. tey mënul bokk local mënul bok législative mënul bok présidentiel kon wax deug yalla je pense que ginaaw bu Khalifa Sall jotee am ben mandat ñu fokkatiwaat ko ci loxoom ba Khalifa Sall mënul bok ci dara té ci coalition Yewwi Askan Wi ñun bañ ci dugg ñun calculer wuñu ay leader wala ay parti yuy am un soutien Nous nous ñu Nous l'intérêt général ñu Nous Nous bay Nous def nañ ko local nous dafa nous sutura ñu Nous ko euh, législative nous tamit dafa à l'endroit de ces leaders ils taxaw pas informés me rappeler que on a toujours travaillé en cercle restreint tey mbokk yi mbir bi nu muy ñuroo mooy dañu bëgg jël coalition bi mu nekk coalition wu intérêt coalition wu clan te loolu dañ koy ñaawlu parce que coalition bi coalition wu askan wi la kenn amul droit taxaw bëgg ko aakimo wala bëgg ko jël ni moomelam tey lu ñu am ci coalition bi dañu am benn groupe

benen groupe bi muy ñoo melni ñom ñoom dañu doon benn groupe ñom dañuy xéxal benn nit kessé wala benn parti kessé tant que koku li la bëgg coalition bi loolu la nar a bëgg daanaka ci gattal coalition bi narul kippé yeneen dossier wala yeneen cas mu am nag ñetteel groupe bi mooy ñun ñii ñun ñii ñu nga xam ne ni nous sommes inéligibles depuis la nuit des temps bokkuñu ci benn élection

parce que coalition a eu commencé mouvement de soutien Nous avons petit groupement de soutien Nous bureau de de de de de de consultation pour qui que ce soit Nous avons mbokk yi dama ay ñepp man Sénégalais 2005 ba tay man ci politique 18 ans Je ci politique man làbbe yi ñoo ma jur làbbe yi ñoo ma man kenn musuma xamee ci ay caaxaan ba nit di dem ba taxaw jàkkaarloo ak askanu Sénégal di wax ay waxu ay enregistrement di wax ay waxu ay théâtre que théâtre yi daanaka man dama ci amoon rôle bu may joué fii kenn rek mooy théâtre kenn rek mooy théâtre di jëm a manipuler askan wi di jëm a manipuler coalition Yewwi askan wi di zaman nelawal nit ñi di zaman lëndëmal xëri ndax lan ndax bëgg-bëggam dama ne ah, mbokk yi man kilifa la man bàmmeelu biir dañ ma yar ci bàmmeelu biir man parti socialiste la la sosialis yaro parti socialiste laa bàyyeekoo am na lu ngeen xamee lu suma cër man munuma ànd ak nit di ko man ba may taxaw ne suma candidat su ko yàlla mayee aafiya moom lay jàppale su ko yàlla mayulee aafiya diw lay jàppale te diw boobu bu ma koy bu ma koy tudd amuloon benn dossier justice ma tudd ko rek te yàlla tax ak yéene wante yàlla nañ yàlla àtte tey ñu ma tey ñu may bëgg a dëkkaloo fu ma dëkkul du ma ko nangu moo tax ma ni naa yëkkati ay kàddu parce que Sénégal ñépp a ko bokk bëgg lëndëmal xelu nit ñi dama ne ñit euh, ki sooy wax dangay ngay wax jusqu'au bout man jàppale naa fi nit dimbali naa fi nit defaral naa fi nit lu ngeen xam ne nii maa ngi jógaru ci kàddu yi su ma yoon tegoon tey loxo cour d'assises lay dem te mu ngi may dégg te soxlu ma indi ay preuve moom xam na man xam naa te yàlla xam na fa rek laa yem ci wax ci man duma fi génn ay preuve man xaw ma ay yëfu enregistrement kenn yaruma ci loolu Et je le répète, Amoul Aïe, je n'étais pas informé. Il était au cœur du dialogue. Il était au cœur de toute la démarche. La preuve, am fi kilifa bu fi taxaw ne moom ak président palais Khede, ak ben leader wu Yewi Askan Wi wante leader wu Yewi Askan Wi ba tey lu ak ndaw président Makissal, Sall ko mom nak amna droit dalal ndaw bu kay Macky Sall di yónni wante man mi awma droit di dalal ñetti yoon suma kër ay ndaw ñu ñew di jema dox jam euh mbokk yi ñun ñëpp yalla daf ñu baxé xel na ku nekk xalat jarul xulo jarul xex su nekkee sénégalais ñu taxaju nañ ko tek ci yoon suñ ko ci yoon kenn du sonn yow falogoo sax yaangi ngi yaangi yaa ngi xaste yaangi ngi xuloo yaa ngi menacé yow bés bu lo yalla baxé le pouvoir do lan yow xana kon da ngay lekk ñi ñi rek wax bi jeex motax mané ma mbokk yi nañu xolaat suñu taxaway té xolaat ëllëgu Sénégal Sénégal li ñi wajé a pétrole li ñi wajé a gaz dama né à l'heure de l'exploitation de ces richesses ñu noonu liggéey suñu santé suñu éducation suñu infrastructure suñu suñu suñu suñu ñu ñuy bëgg a nous ñuy bëgg a woo ci ay xeex dama ne kenn bañul xeex man luma wos, wax te may dégalaat wax ci dama ne balaa ñuy xeex nañu njëkk jéem a waxtaan moom gëm te ñuy wax ñépp nak yéen sénégalais yi xamante nañu yéen xam ngeen est-ce que man yàggal yàgg naa Sénégal am déet ñu ci bëri ñuy wax ni tey ba may xeexal Sénégal ñoom fu ñu nekkoon ba may daj du may daj pour Sénégal ñoom fu ñu nekkoon maa ngi dégg ñu bëri ñuy wax ma ne leen man ba may njëkk dégg monsieur le maire ci 2009 ñenn ñi ay fonctionnaire rek lu ñu woon kenn musul dégg seen tur kenn musul dégg seen sant ci politique ba may faluwaat 2014 ils étaient dans l'anonymat total kenn musul dégg seen mosul musuñu woon toj fenn lu may dëgg bi ba may dugg assemblée nationale di nekk

la politique de la pensée unique. Ça ne passera pas dans ce pays. Et non plus, ça ne passera pas dans Yahweh Askanoui. Que les choses soient bien dites et bien comprises. peux pas respecter. Mais de respecte respecter D'où discussion, d'où négociation. C'est obligé et obligatoire. Non l'individualité, Inch'Allah. Et ma bëgg nak léral lenn ci xelu militants et sympathisants wu au Sénégal lu que même ne ni même suñu sommes ci dialogue nous koy ci dialogue

Lolo ça s'appelle de la stratégie politique Barthélémy Dias say wax ak yéen yéen xam ngeen ma ndaanaan bi mooy wax ak yéen yéen xam ngeen ma te miin ngeen ma xam ngeen lu ma namm Dakar ak ëllëgu Dakar te xam ngeen tamit lu nam namm ci ëllëgu Sénégal man du ma waxantu man askanu Sénégal particulièrement askanu Dakar ñoo ma yónni te yàkkamti ma na wax ji leer Kep ku am cofeel ci man képp kuy gis boppam ci suma liggéey képku am yaakaar ci Barthélemy Dias ak ci au Sénégal maa ngi sakku ci yow ci yar ak teggin ci page Facebook parce que le signal bi mooy lan de 330 000 ñu wàccaat de 280 000 ça veut dire qu'il y a 280 000 followers qui follow les médias leader politique ñu bëri ñu toog fi particulièrement ci coalition yeewi je vous invite à aller chercher 280 000 euh, followers Vous avons 280 000 followers qui député la députés. laa apprenons à nous respecter Nous avons des ak nous ñu ngi jégalu nous di ñep di nous wat di wat askanu Ngor ak euh, toute la communauté ñu ngi